maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri man abaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Tuubaa ca kanam nooru daare ni seen mbokkum taalibe Modou Bousso Ba moo ñëw tey di leen indil bilan financier mois de mars ànd kook banqaas bi ñuy wax commission finance ak sous commission gestion de fonds ñi koy tàmbalee ci nuyu xalifa général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaan mu yàgg fi loolu te di ko sant ci taxawaayam ci kuréel gi di ci teg sëriñ Abibou Mbacké jëwriñu kuréel bi di ko ñaanal suñu borom defal ko fan gudd ak kàttan ak wér ak mbooleem ñi nekk ci biir liggéey bi ñu tàmbalee ko ci Touba weeru mois de mars Touba am nañ fi cinquante deux millions six cent cinquante six mille sept cent quarante wéef bi

am nañ fa million 4 millions 661 mille 854 foofu nag lim daan plafonné tax na ñu yokk ci beneen code marchand boo xam ne moom du plafonné dièse 144 dièse étoile 5 0 41 08 18 Dakar Baye Serigne Bousso ak Serigne Alaaji Ndaw 5 millions 125 mille 800 Kër Massar Soxna Ndey Jaxate soixante-dix-huit mille Mbar soxna Ndaak Sey cent mille francs Mbàkke ci njiital Adja Dior ak Serigne Mama am nañ fa sept cent trente mille Bambey Serigne Abdou Fall cinquante mille Touba soxna Ndey Diop cinquante mille Diourbel soxna Daba Mbàkke soxna Jaay soxna Njaay Manel am nañ un million deux cent cinquante et un Thiès ci njiital Serigne Mbaye Sall am nañ six cent mille Fouta Bukki Laaje Mouhamadou Fadal Dia am nañ quatre vingt mille daayira Baabul Ayaadi ca añam cent mille francs Goudiri Serigne Damba trois cent soixante dix mille Joal Serigne Bassirou Thiaw cinq cent un mille Kaolack ci njiital Serigne Babacar Mbacke mu Kabaro ak sëñ Moustapha Touré am nañ deux millions un mille Kébémer Serigne Gora Sylla 1 million 4 mille Kédougou Serigne Modou Lo 568 mille Xombol ci njiital Serigne Mbaye Faye 70 mille Kolda Serigne Moussa Sène 302 mille Louga Serigne Moustapha Bassirou Mboup 1 million mille Mbour Serigne Mor Souran 1 million 521 mille Ndiobé Leye Serigne Fallou Fall 10 mille Moudiri Serigne Bassirou Ndiaye cent mille francs croisement Diaroumbe Serigne Modou Makhtar mbay cinquante sept mille francs Ndiawara Serigne Cheikh Anne cinquante mille francs département Dagana Serigne Aliou Ñing cinq cent vingt huit mille francs Saint-Louis Serigne Rijal Seck ak Soxna Rama Fall huit cent Tamba Serigne aadama Niass cent cinquante mille francs Ngaay soxna Maguette jiite deux cent quatre-vingt-douze mille francs Diawbe Serigne Bara Diop deux cent cinquante mille francs Vélingara Serigne Mbacke Gueye cent vingt mille francs Daaru Moxti soxna Muslim Mbacke cinquante mille francs Madina Touré soxna Oumy Mbacke Galas cent cinquante mille francs Sema 3 Serigne Samba Ndiaye quinze mille francs soxna mbenn Faye quarante mille francs jàppandal soxna Abi Faye quinze mille francs jaayante xalifa général des Mourides ni mu ko baaxoo defee at mu jot mu joxeel boppam joxeel juróom-ñeent fukki murit ak juróom-ñeent joxe na un million deux cent versement yi nga xam ne nii ñi koy def duñ joxe seen tur ñu koy tudde versement anonyme am nañ ci trois millions neuf cent cinquante deux mille deux cent quatre-vingt-sept francs fere yi nga xam ne banque yi dañ koy jël dañu ko delloo retard de banque delloo na cent soixante mille quatre cent soixante sept suñu boolee li nga xam ne moo dugg ci mois de mars ci biir réew mi mu ngi toll ci quatre vingt douze millions cinq cent mille sept cent quarante cinq francs quatre vingt douze millions cinq cent mille sept cent quarante cinq francs. li jógee bitim réew ci mois de mars. 2021 ñi tàmbalee ko ci zone Amérique Brésil Serigne Cheikh Ndiaye 465 000 francs Uruguay Serigne Ndonga Niang 100 000 francs Mexique Serigne Daouda Seck 55 000 francs États-Unis Serigne Souhaïbou Seck 7 millions 33 mille 500 francs Argentine Serigne Pape Soda Sey 500 000 suñu boolee li nga xam ne moo jógee lépp ci zone Amérique ci mois de mars bi mi ngi toll ci huit millions cent cinquante mille cinq cent francs huit millions cent cinquante mille cinq cent francs zone Europe ñu tàmbalee ko ci Allemagne ci njiital Serigne Abdou Salam Faye million cent quatre mille neuf cent soixante dix francs Italie coordination ba joxe nañ trois millions sept cent mille trois cent francs Russie Serigne Mor Mbeng cent seize mille six cent soixante quinze francs Suisse Serigne Ndiaga Aw quatre cent mille francs France coordination ba quatre cent quarante huit mille cinquante francs Espagne Serigne Malick Dieng quatre cent trente huit mille huit cent francs li ñu dajale lépp ci zone Europe ci mois de mars bi mu ngi toll ci six millions trois cent soixante deux mille six millions trois cent soixante deux mille huit cent ñi jàll ci zone Afrique tàmbalee ko ci Cap Vert ci njiital Serigne Abdou Lahad Amar dajale nañ huit cent trente deux mille Congo Kinshasa soxna Kiné Sow vingt mille francs Afrique du Sud Serigne Mor Dieng neuf cent mille francs Mali Serigne Aliou Waaj un million deux cent seize mille francs Guinée Bissau Serigne Moodu Atta Seck six cent quatre-vingt-un mille trois cents kon bu ñu boolee li li ñu dajalee Afrique lépp ci mois de mars bi mu ngi toll ci trois millions six cent cinquante-quatre mille trois cents francs trois millions six cent cinquante-quatre mille trois cents francs kon bu ñu boolee li nga xam ne moom la ñu dajale lépp ci mois de mars bi ci diggante reçu yi ak carte yi lépp mi ngi toll ci cent dix millions sept cent neuf mille trois cent soixante quinze francs cent dix millions sept cent neuf mille trois cent soixante quinze ginnaaw bu ñu dajalee koppar yooyu nag jëme ko ci liggéey bi ni ñu ko dugalee ci liggéey bi muy décaissement yi ñu leeral leen ko li ci njëkk mooy chantier bi nga xam ne Touba ca kanam ma ngi koy jaayante ci université ba mu war a toll ci benn immeuble huit cent millions mois de mars bi dugal nañ fa trois millions vingt mille francs opération defar yoon wi muy engagement bi ñu jëloon depuis mois d' août mille vingt doon liggéey yoon yi ak di yaatalaat di def assainissement bi taataayi ci dëkk bi ñu di ko fi jëlee mbokk taalibe yi ci jàppoon jaayante booba ba léegi mi ngi woy ñi ngi ci génne ci weeru mars bi dix neuf millions trente trois mille cinq cent soixante deux francs. Sànce Ndaam. di poste de santé bi fa Touba ci kanam di def dugal nañ fa un million ci mois de mars bi communication mooy ñi nga xam ne ñoo yaatal liggéey bi def nañ fa soixante quinze mille francs ci mois de mars bi commission logistique ñi nga xam ne jumtukaay roulant yi nga xam ne moom la Touba ci kanam am ñu ko gérer ah, jumtukaay yooyu def nañ ci quatre millions six cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quarante et un francs budget fonctionnement dépense urgent mooy budget bi nga xam ne dañ koy génne ngir décaissement yu yàkkamti yi cinq cent mille francs commission reboisement mooy ñi nga xam ne ñoo yor wàllu garab yi liggéey bi ñuy def ca cimetière yi baax ya muy armeel yi baax ya euh, ngir xeej na xeex naaj wi ak tàngoor wi Touba ca kanam ma nga fa sumb ay garab yu mu fay def def nañ fa ci mois de mars bi un million cent trente mille trois cent francs frais divers yi nga xam ne ay frais la yu jàmp def nañ ci deux cent cinquante mille francs commission administrative mooy ñi nga xam ne ñoo ngank liggéey bi ci bureau yi def nañ ay frais deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent francs euh, charge fixe muy lu ñu mën a tuddee salaire ba di ko barkeeloo ci mbokk taalibe yi ànd ak Touba Ca Kanam ci liggéey bi diggante mois de février ak mois de mars boo leen boolee def nañ ci onze million cinq mille francs commission membre mooy commission bi saytu carte membre yi fere nañ un million deux cent cinquante mille francs commission massification mooy ñi nga xam ne ñooy yaatal liggéey bi ci gox-goxaan yi ñoom fere nañ ci mois de mars bi quatre cent mille francs fere bancaire mooy fere yoo xam ne banques yi dañ koy jël waaye danañ ko delloosiwaat cinquante neuf mille huit cent huit francs boo boolee li nga xam ne lépp moo génn ci mois de mars bi ci xaalis mi ngi toll ci quarante deux millions sept cent dix mille six cent onze francs quarante deux millions sept cent dix mille six cent onze francs kon li nga xam ne nii encaissé woon nañ ko ci mois de mars bi mu ngi tolloon ci cent dix millions sept cent neuf mille trois cent soixante quinze francs suñ ci génnee li nga xam ne moo génn ci mois de mars bi di 42 millions 710 mille 611 francs ñi ngi dese ci mois de mars bi 67 millions 998 mille 764 67 millions 998 mille 764 li nga xam ne moo nekkoon ci kees yi Touba ca kanam ci mois de février mi ngi tolloon ci 931 millions 562 mille 655 su fekk see li nga xam ne dajale nañ ko ci mois de mars bi ñi ngi am léegi ci kees yi li nga xam ne moo ne ci kees yi disponible mooy neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent soixante et cent dix-neuf francs neuf cent quatre-vingt-dix-neuf cent soixante et un mille quatre cent dix-neuf francs jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay bi ngeen am ci Touba ci kanam jërë ngeen jëf bi jaay xayri man abaa